ay mbiram jeex na Sénégal parce que mën na tuta weesu 2024 te il faut que nag bu demee am ku ko remplacer mais moom nag nee na moom mooy xool ñi nga xam ni moo ko neex mu teg leen fa te jeu démocratique moo demeewul noonu ñu ne moom mi nga xam ni moo jëloon Karim Wade di sànni ci àll ba na fexe nu mu jëlee Karim Wade indi ko parce que bu ko deful élection yi di ñëw parti démocratique sénégalais taxawaay bi nga xam war nañ ko cee taxaw dañ ko ci taxaw ba Karim Wade bokku ci da ci bokku ci nii wala ci nele bokku ci nii mooy moom mi nga xam ne moo sandi ci Allah ba na ko jëlee andi ko bu ko deful parti démocratique sénégalais dinañu taxaw ci élection yi won ko ne ko bu Karim Wade bokkul élection du fi mëna am parce que mënu ñu japp ni réew mu day ñu Sénégal ñu demee élection président bi ne mom moy xol ni nga xamni moko ñoko neex mu and ak ñom dem ci élection yi ñiko neex mu neexu mu jël leen teg leen fële looloo tax ñi nga xamni mënu leen a def comme Karim Wade mu ne andi li ñuy wax parrainage parce que parti démocratique sénégalais kenn mënu ko téy ci parrainage parce que moi, li am ci ay militants rek mënoon candidat yi nga xam ne yëpp bokkoon mais comme mënta def loolu mu ne na andi na andi li nga jaay force état lay jël bëgg koo ci ay candidat ñu ne loolu duñ ko nangu li ci des mooy ci dafa ni Sénégalais yëpp dañ ciy ànd parce que ici aussi élection dafa am noo xam nu dañ koy organiser mais comme élection yi euh, système ni ñu organiser parrainage yi ñu ne ko tëj tëj ko fële dem ci élection yi peuple sénégalais le meilleur parrain c'est le peuple sénégalais peuple sénégalais ku ñu ne yow lañu jox majorité ñu and ak mom dem assemblée nationale ñom ñu dawal mais li ñu xamné duñ ko nang moy Macky Sall tok fi li nga xamné ne ak aki la bu bëgg jël tek ko feulé bëgg koo daxal liko neex lool dañu la duñ ci and lénen li ci des moy nak waxtan nañ suñu parti ñun ñi nga xam ñun waa PDS parce que comme ñu ngi def ci élection té dañu génn ci yeneen élection té gis nañ élection yi ñu génnoon coow li bari na ñu ne pour éviter coow loolu amat nañu déglu base bi parce que élection yi ñu jëm élection base la parce que base bi ñoy voter donc choix wu nit ñi war nañ ko xol xoolaat ko parce que waruñoo choisir n'importe qui parce que bo choisir n'importe qui